salaamaaleykum wa rahmatullahi mbokk yi tey euh, yéen ñi baaxoo ànd ak ñun ci sun émission bi tey nag dañoo ñëw seet si koo xam ne ni di kenn ci réew mi mën naa ne ndax euh, li muy def da ko donn ci ay maamam ndax boo nee kuy maamam ñu ne sëriñ Afia Mbacke ñu di ko wax sëriñ Modou Mbacke moom sëñ Saliou moom sëñ Afia tey moom lañ seet si fas yéene séq ak moom aw waxtaan rawatina fii réew mu toll ndax euh, ca démb bu réew mi masaan toll fii dañuy seeti ay maam te nag law la ca maam sët baa koy doon looloo tax nag tey ñu ñëw fii jàkkaarloog moom Mbacke Balla ginnaaw bu ñu la nuyoo ñu lay jaar ci bis bi rawatina ci euh, ñu ngi jégglu xañ na xat fekk nañ la sax nga jàpp waaye dañ ñoo may ci sa ci sa astan tuuti rek ngir nga fas yéene laabiré li nga xam moom moo di euh, mbokk yi nga xam ne ñoo jàkkaarloo yow bi ginnaaw bu ñu la lay jaar waaleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi leen di fay nuyoo bu baax maam Thierno aousu billahi samihil alim bismillahi min charri iblisi saytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wala xawla wala quwata illa billahi al alil azim ñu mbokk mbokki réew mi yëpp ak mbokki bitim réew di leen ñaanal jàmm ko di leen mbokki taalibe yëpp waaw seen Thierno maanaam jamono moom dafa dafa dafa yëngu fi toll nii te ku xam euh, yëngu-yëngu jamono danga dellu ci delluwaay ba ndax kat li yëngal ku xam da danga wuti kaaraange da nga daw ci ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoo ñoo saytu mbir mi ba xam ko ba téye ko ñu defal la leen la war a defal ndax fi mu toll nii fii jamono toll jinne yi nga xam ne dañoo amoon kiiraay nga xam ne bu njëkk daawun daawun dugg sax ci biir dëkk bi ba yàq dara ñoom ñu ngi dugg ndax mën naa cee tudd kenn Lucifer moom mooy ki nga xam ne Océan moo ko yebal ci biir dëkk bi ngir mu jiixi jaaxa ñu baree bare ngir yàq seen biir loolu mi ngi dox kon ndaw ñi <clears throat> dañ leen dañ leen wax ñu def attention bu baax a baax a baax waaw maam ñu bu ko defee daal ñun moom lu ci lu ci sunu euh, responsabilité mooy ñu génn xam-xam bi nga xam ne yàlla jox nañu ko ñu ñu ñu ñu jariñ ci nit ñi boole rek waaw Ousmane Sonko moom mbiram day day loo xam ne bari na coow lool waaye man mbiram dama cee xam lu baree bari loo xam ne euh, deesu ko wax sax ci ci média déet dama cee xam loo xam ne moom deesu ma ko wax ci ci waaye daal li ma leen ci xamal mooy mooy jafe-jafe yii mu nekk dana ci génn. yaa xam waaw maanaam Sonko moom xam nga day koo xam ne euh, fa mu tàmmalee ba fii mu egsi lépp ay tolof tolof la koo xam-xam ne lépp ay tolof tolof la waaye la ko ci doon la ko ci doon ginne ak la ko ci doon muccal ba léegi nii loolu mi ngi waaw loolu man loolu moom ku ma ku ma xam man xam na ma ak sonkoo moom waaw waaye daal nan li li wér te wóor daal moom mooy euh, mbir mii moom bu yeboo ñu tey ci te def ci ndànk te Sonko ñu xam ne problème yi mu nekk nii dana ci génn waaw man nag man nag man nag damay koo xam ne dama dama damaa damaa féete fu damaa damaa jaxasoo ñu bari ku ma xam samay maas xam naa ne ñu bari xàmmee nañ ma waaye ku ma xam nag xam ma xam ma ci réew mi waaw ak ak jaxasook kilifa yi. déet waaw Macky Sall Macky Sall ak Farba moom moom xam nañ xam nañ bu baax moom far Farba Ngom xam nañ bu baax waaw. waaw leen laaj. da nga leen laaj. <laughs> ah man daal foofu laa ci yem. du ma ci ci sori. du ci sori ndax ndax damay kilifa te du lépp lan mën a wax Thierno man jàll. a ah, moom daal xam naa ne. yii mu nekk nii moom dana ci génn jafe-jafe yii Ousmane Sonko di jànkonteel nii dana ci génn loolu man maa la ko wax fii tey. maanaam Thierno jàllal sëñ bi. déet waaye yii mu nekk da ciy génn loolu kay lu leer lu leer laa la wax. dana ci génn dana génn ci te dana bokk ci élection yi man maa la ko wax da man maa la ko wax laa wax man maa la ko wax fii laa ko waxee de maanaam man daal naa leen wax ñu dal te xam ne euh, maanaam xeex ak yàq mënut a defar dara Sénégal li koy defar mooy maanaam ak tey akuk dal loolu lañ xamee réew mi lii ñu bëgg xeex nag maanaam maanaam am na ñu leen ko dàq xeex fuuf te ñu ngi koy xeex ci suuf te coow coow amut kon nan tey te xam ne daal Sonko ñu ne ci ginnaawam euh, bari nañ waaye maal man man waxuma nag maa ngi ci ginnaaw kenn man politique sax daanaka li ma ciy wax bëriwut waaye daal nan xam ne yii yëpp yii yëpp lu fi jaar la te dana jàll te dana sedd ndox mu sedd guy moo ci moo ci topp. ah man daal wax naa ba pare.

de de de xam nga xam nga fi mu toll nii fii may fi may wax yow nii li ma xam li ma xam dafa bari te diggante Macky Sall Macky Sall Macky laa wax de Macky na def attention bu baax a baax président Macky Sall na def attention bu baax a baax a baax a baax moo ko Farba. wax laa yem moom xam na. déet man damay côté man du lépp laay wax muy leer de nay leer fii man du du lépp laay génne waaye li ma xam moo bari. day mën a dugg ci bopp gaay deet man daal ñi may waxal xam nañ quand man jàll Thierno deet Thierno jàll bu mi tolluwaay nga dee bu dee wàllum bu dee wàllum wàllum wàllum mbëkk mii ngay gis moom moom seytaane moo ci dugg ñu bari ñuy dem ñu bari ñuy dem jinne yi ci géej gi ñoo leen di xëcc ñuy dem loolu nan wut kaaraange bu baax te te wattandiku waaw ñi ciy àgg bariwut ñi ma gis ñuy dem ñi ciy àgg bariwut ñu ci bari ci yoon wi la ñuy dee ñenn ñi seenum xel dana tàggoog ñoom ba buñ àggee duñ liggéey nan nan nan tey bu baax waaw déet eh, jinne kay ku ma xam-xam ne man maag jinne yi ñoo ñoo far waa ah, Océan laisser faire mooy seen njiit mooy yónni Océan moom ci biir dëkk bi ci sori nan wax nan ci li nga xam ne gars yi ko mën a dégg loolu mbirum jinde moom xam ne daa cee wax waa jinne ak rab moom bokkuñu ñu bari dan naan ñëw bokk waaye bokkuñu rab mooy àndandoo àndandoo ñëpp a ko am waaye nag daa am ñoo xam ne seen àndandoo dafa juboo ak ñoom ba lépp loo xam ne dañ ciy dugg mu dugg mu duggal leen si nga xam dañ ciy mën a yomb am ndam am ñoo xam ne li leen yàq lépp rab la waaye jinne it dafa dafa am doole moom it bokkut ba tey ak rawxaan yooyu yëpp ci nekk yu wute la rawxaan ci turu yàlla lay génne rawxaan leer la ñépp mun ñu ko am. ci bokkuñ xam nga xam-xam moom. day day loo day loo xam ne maanaam ñëpp amuñu ko te lii ma lay lii may wax ak yow nii day xam-xam boo xam ne xam-xam bu xóot la day xam-xam bu xóot te te te te li ma la ciy wax nii ñi xam asraar dëgg dëgg dëgg dëgg duñ ko weddi ko waaye bu dee wàllum sarax moom ku nekk ak saraxam nit ku nekk ak sarax ba nga xam ne mooy saraxam mooy sarax bi mu war a génne am na ñoo xam ne tuur deret baaxut ci ñoom ñuy tuur deret ñooñu nan xam ne ala kulli xaal ci suuf lañ jëm seen mbir day taxaw day tëju

gars waaw xam nga Sonko mbiram jinne da cee da cee da cee da cee am da cee rax. lu bees tax waaw mbiram jinne da cee rax da cee rax bu wér ba ba ba ba moom boo ku ko xam ku ko xam xam ne xam nga ab taalam jinne jinne ci la bokk. waaw ba mu Sonko waaw. Sonko est-ce xamee ne bayre bi Sonko amee nii nitu kase rek mënu koo mënu koo amee déet dafa dafa am doole ay jinne ñoo ñoo ci rax ah, loolu loolu ko xam ko xam xaqiiqa dëgg da nga ko xam déet man daal xam naa ne waaw man moom man moom man moom damaa toog damaa toog ci lu wér man damaa toog ci lu wér péng loo xam ne euh, maanaam mbiru maanaam du yëfi xale waa ci gàttal maanaam du yëfi xale koo xam ne maanaam man duma duma gone kenn waaw man duma gone kenn ah man daal ku ku ku ku joosanteeg man da nga xam ne joosante nga ak ku mot a joosanteel xam naa ne daal leen daal danaa danaa ko baaxe waa réew mi ñu def ci attention nawet bii moom maanaam dana déegi dana bari lool waaw déegi dana bari lool sax waaw ndaw ñi ma gis ci réew mi ñu ci bari amuñu kaaraange waaw ñu ci bari li leen di yëngal ñoom xamuñu ko dañuy yëngu waaye kuy yë ku ñuy yëngal mënoo yëngal waaw loolu ma wax la ko tey ku ñuy yëngal la leen di yëngal nag mooy yëngu waaye ñoom yëngalul waaw kon nan def attention bu baax ñu daw te wuti kaaraange. waaw ah, Macky moom <laughs> Macky moom daanaka euh, moom moom moom <clears throat> loolu mu def baax na Macky bàyyi yi mu bàyyi moo gën ci moom waaye na xam ne daal ginnaaw moom coow dana am coow dana am ci réew mi waaw ginnaaw Macky Sall coow dana am ci réew mi moom tëj gi nga ko di ko wàññi dara dana ginn ci ci jafe-jafe yi mu nekk balaa yàgg dana ci génn loolu man maa la ko fii laa ko waxee déet moom dale moom maam dale dale moom mooy loo xam ne maanaam kii toog naan day joxe dale man du man waaye li ma lay wax nii moom balaa ay fan danga ci teg sa bët waaw danga ci teg sa bët maa la ko waxee fii xam nga ku ku ku xam du damaa xam waaw ndax xanaa xamoo ne bis bu set dana ma woon ci ci réew mi lu bees loo xam ne maanaam dama ciy teg sama bët bii waaw. waaw dama ciy teg sama bët bi bis bu set damay xam lu bees ci réew mi loo xam ne bis bu set waaw. man daal li ma li ma gis daal moom dara dana tuuru ju bare bare te nawet bii nii moom déegi dana bari te te ndaw ñi te ci ndaw ñi la buñ góorgóorlu maanaam bu yeboo ñu daw wuti kaaraange loolu man maa ko wax man maa leen baaxeloon nan daw wute kaaraange ndax réew mi li ci li ci li fi rax dafa bari li rax ci réew mi dafa bari waaw. loolu moom kilifay yi laay waxal. kilifa yi mooy président ak ministère yi ak ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoo ŋànk nguur gi maanaam nanu nguutal kaaraange seen ndawi réew ndax ëllëg kat yomal xiyaam yàlla ñoom lay laaj ndax ñoom ñoo jiite réew mi waaw loolu laa am ci damay wax ñoom nan wutal nan wutal ndaw ñi kaaraange te wut kaaraange ci réew mi déet ñoom ñooy wut kaaraange ci réew mi def sarax war a def ndax réew mi ku ne xam ne manqué ay sarax waaw ceer réew mi dafa manqué ay sarax réew mi moom dafa manqué ay sarax te it maa ngi maa ngi wax waajur yi nan téye seen doom yi waajur yi nañ téye seen doom yi te te te wutal leen te wutal leen sécurité kaaraange ndax fi mu nii fii réew mi dafa jaxasoo waaw suuf si dafay yëngu te kenn yëgut suuf si mooy yëngu waaw mooy yëngu suuf si. waaye maa ngi sant sant ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu waa réew waa bitim réew yëpp yéen ñaanal jàmm di ñaan yàlla mu def ci réew mi jàmm te aar ñëpp te sàmm ñëpp waaxiru daawaanaa ni alhamdulilahi rabbil alamin